fii nga xam ne déjà mooy ci biir kër yi ci biir kër yi mooy xale yi bu fekkee ne euh, waajur yi jur gone gi mënuñu lu dundal dañ koy bàyyi mu nekk ci mbedd mi kon boog ñu war a saytuwaat nag euh, njur mi dañ koy dañ koy saytu njur mi dañ koy nangu nekk problème la parce que bu fekkee ne yow da ngay am doom joo xam ne euh, mënuloo ko wutal kayit mënuloo ko dundal rek daal di koy dénk keneen mu def ci lépp foog ñu wax ko xale bi ci famille bi la bokk mais xale bi tam citoyen la xale bi bu amul këyit état bi am na ci wàll xale bi bu waree jàng état bi am na ci wàll xale bi bu waree wut état bi am na ci wàll loolu yëpp daal defe naa ne buñ ko toogee di ko saytu di ko xoolaat di fàttaliku lu fi jotoon def ndax nag Sénégalu suba nag xale yi dañ fi am solo boo xam ne lépp lu ñuy def te jiitaluñ leen ci ak seen melokaan ak seen jamono defe naa ne lépp luñ fi def rek du du mujj fenn